terewul kon muy roy ci nasaraan yax ci waaye tamit ci diwaanu Afrique yi këpp gépp tubaab bay wax de américaine bi ne askan wi daal bi bañ jotee bañ nañu ba tëdd ca suuf waaye lal yëpp ci wàllu bi yoon laas ne moom Hillary Clinton moom ay kàddu Nicolas Sarkozy da koo weddi ko fële tribune yéene kaay ne da koo jubbanti kay moom Obama ba le soleil xam leneen ne waa Sénégal daal Amérique kon danañ leen jàpp coowal Casamance gi ak coowal Hissène Habré bi le populaire ne ndaw si day xas na kon Abdoulaye Wade te tuddul waaye xalamal na kon waa Yaana Maar Macky Sall moom mi ngi di fal moom ay nitam nday saan wàllum nomination ya libération yéene kay ne falati na ministre d'état bu bees ah professeur Abdoulaye Mathily la i waaw waaw ak ñaar ci ay ministre conseiller ñu ko juuf waaye tamit jël na kenn koo xam ne daf koy xelal di ab conseil spécial ci wàllu diine ji Cheikh Mbacke Sakho la la ilaha illa la tribune yéene kaay ne professeur Abdoulaye Bathily day jox nañ ko wàlla moom tamit ca gato ba lekk na lekk ga Walf Grand Place ne est-ce que nekkul la kon ci ay tànku Abdoulaye Wade kon lay jaar ak falinam yu bari yi lé nomination yi ak lu ci mën awul daal mooy palem ba daala ngay bëgg a fees moom palem baa ngay ne premier ministre ak ñaar fukki ministre ak juróom yi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi ak ministre conseil yi nga xam ne kon Macky Sall jot na leen a jël baaxul kay mooy lonaas kee coow am na fa de le populaire ne bay laa wan ma nekkoon directeur général ba ak Ibrahima Condé Tognan ma nekkoon président conseil d'administration ba lii raam daal di dem seen kaw bu fa amee kër du fa gaaw a génn ah il risque gros tribune yéene kaay ne bay kon la fanaan ngir wàllum njuuj njaaj sama poosu askan wi lee laas ne tiwaawan kat yorinam gu ko dab lii daal tax na ba moo kondeto ñaa caabi kon féete na leen ginnaaw waaye bay laa fa seenee defante de ah waaw waaw bay ne du ma banque su may loxo mukk ñu may lox li ma xam yëpp danaa ko wax libération yéene kaay ne bis bu bay laa wan waxee ah adduna tukki de maar tey taali maa la wax lii bay laa wan daal bis bu waxee dana fi takkal ay kilifa diine waaye tamit dana fi takkal kon ay politique dégg nga yéene kaay ne lëf la daal la muy reeka yaatu yëpp ah ñetti milliards ak téeméer ak fukk la wax le le quotidien yéene kaay ne day laa wane ko ne toña ah, wàllum détournement de deniers publics couple ba kon placé nañ leen ca commissariat au port Sud Quotidien ne auditu 2008 ja moo leen mujj kon dugal ci musiba bi le si ba kon am na ca armée ba li xew yéene kaay ne coowal suuf la ah, waaw waaw Macky sàll kat sous-officier yi ak soldaaru joxo coxo yi lée waaw ñoom daal la mujj delloo kon seen yëf ak ak yelleef ba mat sax waaye kilifay soldaar yoo jee di hiérarchie militaire wax la kilifay nekk ci armée bi ci boppam ndàmpaayu dëkkuwaay bi nga xam ni kon soldaar yi dañ leen ko doon jox seen kilifay nekk ci armee bi nangu nañu ko ba noppi wax soldaar su ndaw si ne leen léegi da ngeen di fay courant ay waay samba tay takk der yaa takk yoo jee problème amatina réew mi ko tijee ne ginnaaw ba ñu tegee loxo juróom ñaar ci ay takk der ah. nit ak di dóor nit ba ñuy bëgg a dee di wàllum torture lu ci toll fanweer ci ay policiers gendarme ak ay garde pénitentiaire ña nga yoonu rëbës ba dee marti tali boo sàgganee danañu dem dee dem naa ca làmb ja Modou Lo ci suñu làmb ne promoteur yi mënuñ ñoo imposer maanaam forcé ñu nañu lii ngeen di fayee ko yéen mbëri par force loolu kon promoteur yi mënuñu ko li gay mën yëpp def nañu ko démb ca football ba ca Angleterre jeux olympiques yi la nee suñu diggante kon ak Mexique la Moussa Konaté fa jaar moo dugalaat démb bit ba de ah waaw waaw <laughs> alaaji bilaay yi saanekat yi mënuñu ma de lu tax ah waaye yow ma ni te du démb laa fi wax ne dañuy dugalaat dañuy dugal wa Aliou Cissé dugal kese kese kese kese kese la jàngal xale yi Moussa Konaté dugal suñu premier match Moussa Konaté dugalaat contre Uruguay xale baa dugalaat deuxième bit ba démb tamit Moussa Konaté dugalaat man daal dugal daal taamu naa ko sóor dugal rek dugal rek dugal rek yow tëjal sa journal bi moo gën ngay wut loo ma xase del dugal yow it moo gën sa tëj beeg sa tijji bi nga nekkee ci mim réew